altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin mbokk yi bisimila ñu ànd ak yéen ci jotaayu digg bëccëg gi ci yàttal la di ko dore ka jukki la ca gën a fës bokk na ci jamono ji alu ñeel mbiru kay jël kebir nekk feetuk tabaski te ji rek ñu koy màggal fii ci réew ka Sénégal bokk na ci nag la ñu seetlu moom mooy njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moom ma nga woon nag ca boruk grande mosquée ngir rek yi lekk ñaan foofa àdduna jëmale nag ci lépp loo xam moom mooy jàmm ji mu seetlu ci réew ka Sénégal naka noonu tamit ci lépp loo xam ne rek xew bokk na ci tam la ñu seetlu ci yeneen i mbooleem jumaa yi nga xam ne daal jot nañu fa doxantu ne way politique ya ñoom ña nga fa woon yi ah, daal di rek waxtaan itam lépp loo xam moo ñeel jëmi jamono fii ci réew ko Sénégal la ko yokkuteefu ko dund waaye tamit ah, lépp lu ñeel wàllu ko ah, ponk bu laal mbiru ko pétrole bi le loolee la ñu gis rek ca baru ko mosquée omarienne foofa amadu Ba nekkoon rek limaanu jëwrin yi ci gouvernement weesu moom tamit foofa rek la daal di jullee bu ñu koy xayma àdduna tamit jëmale ci njeexitalu ko ponk yëngal fii ci réew ko Sénégal la mbokk yi kon mi ngoog ci tënk looloy li fi gën a fës bu ngeen taaxin loolu tuuti rek bu ak bi noppee ñu ànd ak yéen ci faram-fàcce gi. jaajëfal leen bu baax a baax ci bi ak teewlu seen programme mu chaîne de télévision 7TV mbokk yi tabaski bile la ñu koy tàmbalee daanaka moom mooy ponk bile ca boruk grande seetlu nañ nag ne askan fa xëy daal di fa julli ji bëri woon na lool noonu sax ci teewaayu ko jiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom daal di tamit dellu si ci jàmm ji nga xam ne daal moom la seetlu ci biir réew mi naka noonu tam ci lépp loo xam ne moom ko fi sàkku Pape Malick ci leeral.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 jërëjëf Pape Malick Thiam foofa sax la ñuy desandi ndaxte nag imam na Moussa Samb moom moom moo daal di jiite julli gile jàppale ndak ni ci yi nga xam ne daal mu ngay xutba woon rek mboolem kilifa yi rawatina rek askanu ko Sénégal ñoom ñooñee ñu mànkoo nekk benn ngir rek daal di liggéeyal Sénégal lu ko jàmm waaye tamit Sénégal lu ko ëllëg ñu teew lay kàddoom. réew moo xam ne dañuy ñaaw yàlla lu ñu ñaan yàlla nangu kon képp koo xamante ni da fi nekk.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 ñu wutali mosquée omarienne foofa tam imam ba nga xamante rek moom mooy euh, Thierno Seydou Nourou Tall moom nag ñaax na ndaw yi ci lépp loo xam ne euh, moom moo ñeel xarala yu yees yi ak yenn yu mel foofa élimaanu jëwriñ ci gouvernement bi ñu weesu di amadu Ba foofa la daal di jullee moom tam daal di rek xam ne ni ànd na bu baax a baax ak xutba ak imaam bile moom tamit daal di rek ki gis-gisam daal di koy joxe ñu teewlu ko. ñu daal di sol seen yëre yu gën a rafet ñu nekk ay junni junni nit daal di teewee julli gi ci bile juma ay njiitu parti politique ak yeneen personnalité yu dëkk bi daal koy fekkee si. balaa imaam bi di ñëw nag njàngum alquranul karim ak ay tuuri yàlla képp lañ doon dégg. allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ñaari simili gannaaw ba imaam bi ñëwee nag ñu daal di taxawal julli. xutba bi nag mu daal di koy tënk ci ñetti poñ bi ci jiitu ne respect bi ñu war a am ci way jur yi. ku bugg sa njaboot suñ ñëwee nga am njaboot ñu déggal la da ngay déggal sa waajur kamaatu diinu tadaab ni nga koy ni ngay boot ni nga leble loo leblee rek moom lañ lay fel yàlla ku maandu la ngërëmalu yàlla mu ngi nekk si ngërëmalu ay waajur merub yàlla mu ngi nekk si meru ay waajur. li ci topp moo di. ni ñu jëfandikoo xarala yu yees yi. li ñuy wax net ngeen bañ a topp yooyu ndax léegi loolu moo yóbbu xelu xale yépp xale yëpp dof nañu si loolu li ñuy gis li foofu loolu la ñuy wax da ki génk jékki-jékki rek gis ñu ne la diw wax na lii te yaa ngi ko gisee ci internet xamuloo mooy kan. bi ci mujj moo di naka la ñu tasee xabaar yi. kon looy wax na xam li ngay wax soo xamul li ngay wax noppil te looy wax li su dee ayiba la même soo ko xamee am na bul ayibal kenn. ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa ne laa laa tuuzu ibadallah bu leen lor jaamu yàlla yi bu leen wex wiññi seen sutura. Eh, ki fi nekkoon candidat benn Bokk Yaakaar ci élection ci jongante njiitum réew yi ñu génn moom nag di xam ne nii li imam bi wax lépp incha allah dina ko jëfee itam nji ñeneen ñi ñu daal di def naka noonu. mënatuñu dund te duñu am ak ni jamono di doxe waaye it nañu xool li nga xam ne moom moo ci baax. di ko jëriñoo ndax it eh, dinañu jàngal ci xam-xam lu bëree bare bare bëri. ñu ñaan yàlla nañ ko déggee yàlla na ko ñëpp déggee noonu. niñ ko tàmm gisee fii ci senegal nag tabaski ñaari yoon lañ ko daal di màggal xalif général bu famille omarienne di xam ne xamlewaat ni kër diine yëpp ñoo ngi ci waxtu gu baax gi ndaxte lii di tabaski ñetti fan lañ ko war a màggal. di ko jaajëfal moom Omar Thiam ci yooyu lekk leeral moom sax la ñuy desandi ndaxte taataan na ay kàddu amadu Ba moom euh, ci bés bi la nag euh, banaka fàttewul benn yoon ponk bi nga xam ne ñenn wàllu ko pétrole ak gaz ci réew ko Sénégal jamono ji nga xam ne réew mi bokk na ci réew yi ñu jàpp ne ay producteurs de pétrole lañu moom jamono ji euh, gis-gisam bu njëkk daal moom mooy jamono ji daal war nañu mën a gën a xayma waaye tamit ñu def ndànk rek ndaxte gis-gis bi ak lépp loo xam ne mooy njeexital yi daanaka xaw na wuute lool ñu déglu ko. de delà de l'exploitation euh, xam pétrole ak gaz mën na amal njariñ askan bi njëriñ bu am am solo waaye it euh, nañu jàpp ni ni ko nit ñi jàppeek ni ko nit ñi yaakaare du doon rek euh, loo xam ne tey tey lay sotti wala tey tey rek lay lépp di soppeeku kooku aussi baax na ñu di ko ñu di ko fàttali nit ñi moo tax man bariwuma ci li ma ciy wax ndax am na nooy yaakaarloo nit ñi mën na demee noo xamante ni nit ñi seen yaakaar dafay tas ndax foo ko mu am nu mu taxawee am ay at tuuti balaa ñuy mën a gis la nga xam ne dina ko jariñ ba ñëpp mën ko ku nekk mën ko yëg kooku processus bu gudd la. pétrole bi nga xamante ne moo feeñ ci réew Sénégal te fa tabaarakallaahu am na lu ci commencé avancé. rabbuka xalifa bi nee na yàlla nañu borom bi may ñu daal di ko njëriñoo suñu njaboot yi ñëw gannaaw ñoon tamit borom bi tabaaraka wa taala may leen ñu daal ko njëriñoo moom mooy amal na ko ci teewaayu yenn ci ay woy politique yu ci mel ni Bougane Gueye Dany foofa nag la ñu fa gis rek moom mooy ñu ngi leen di woo rek ñu gën a joxante gëdd ci jamono ji nga xam ne daanaka coow li lëmbee Sénégal bëri na lool waaye tamit dañu xool rek ci yan anam la ñuy mànkoo bu ko defee jàmmi réew mi gën a yokk ñu teewlu reportage. mbooloo bu takku moo daal di ñëw jullee fii nga xamante ne ni moom mooy Masaalikul naan tey si bésub tabaski bi léegi ñu si bëri daal di ànd ak seen i njaboot bi mu jëlee kàddu gi ci xutbaam imaam Serigne Moustapha Mbacke dellu na bu baax a baax ci li nga xamante ni nii moom mooy kersa. ku ne war ngaa fexe ba am kersa ci sa ne nu may amee kersa moom maanaam mooy fexe ba fegu lu bari du ko nangoo def ngir bañ ku yàq sama der ngëneel yi ma dégg yépp ak dëggu lu may wax ci yow mu doon dëgg ci man ngëneel yi ma dégg it téere yi di ko wax ak borom xam yi di ko wax ma ciy jiim lu ma man ngir kersawu ca noonu ay leader politique ñëwoon ñoom it julli fii nga xamante ne ni moom mooy Masaalikul Jinaan ku ci mel ni Bougane Gueye Dany ak Pape Djibril Fall buñ jëlee kàddu gi nag daal di nañ dellu ci bu baax a baax ci actualité bi nga xamante ni moo ñeel. lépp lu jëm ci dette fiscale entreprise de presse yi lay. xam nga yoon moom yoon la rek yoon moom euh, yoon la kenn ku ci nekk euh, li nga xamante ni moom nga warloo ak yoon na ko def ba mu mat sëkk. li li askanu Sénégal daj ngir ñu agsi au pouvoir mësuñu ko daj ci nit pour mu agsi au pouvoir kon ñoom lu ñu def doyut. li am solo mooy ñun ci dëkk bi lañ dëkk dañoo jariñ réew mi. Mhm. dañoo liggéey ci réew mi. Mhm. du ñu naata xuuna du ñu du dañoo liggéey ba mel ni ñu mel ci réew mi. bu ñu sukkandikoo ba tey ci Mbàkke yu fay moom mii doon représentant wu xalif général des Mourides fii ci dakaar moom nag mu ngi gën a ñaax ñii di autorités yi ngir rek ñu gën a collaborer ak askan wi. la collaboration avec le gouvernement nit ñi bëgg nañ ko mais dafa am foo xam ne fii rek dafay sooxe fa muy sooxe mooy dañuy jël des groupements professionnel ñii ñu tuddee leen le patronat patronat yi ay kii yu bari lañu. or boo demee Touba wala nga dem ci sama mbokk bawol bawol yi wala mbokk kajoor kajoor yi am na ñoo xam ne tey jii boo leen ne génne leen nangami milliards ñu dem ci vallée bi ñu daggal leen ay tool ngeen bay ko ñu bay ko ñooñu dangeen ngeen di élargir wax ak ñoom. imaam Serigne Moustapha Mbacke moom nag ci xutbaam ba tey daal na ñaax bu baax a baax doomi aadama yi ngir rek ñuy muñ di jéggale. mi ngoog Moussa Mané jàppal nag ni jëwriñ bi gàlloo lépp lu jëm ci wàllug mbéy mi moom ma nga woon nag ca foofa moom tamit àdduna jëmale ci wàññi teefuk yenn ci euh, loole di njëgug dund gi ma Mabouba Diagne tamit daal di rek dellu si tàllal loxo mbooleem murid si ngir rek ab njàppale ci jàmm réew ko Sénégal ñu teewlu ko. cri de changement bi nga xam ne ni population bi euh, euh, wane nañ ko ci changement régime bi loolu moo ñu war may ñun ñuy fit. Euh, euh, murit nag ku ko wax euh, fulla ak fayda ak fit moo ko moo moo moo ko moo ko moo ko caractérisé su ngeen xoolee sëñ sëñ Touba bi muy tabax Touba su amul woon fit amul woon communauté bi amul woon pas-pas tey jii Touba du nekk fi mu toll donc ñoo ngi lancé aussi un appel à tout la communauté mouride surtout les hommes d'affaires mourides venez travailler avec le gouvernement suñu gouvernement suñu dëkk bi mi ngi importer 1070 milliards en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards donc maa ngi lancé un appel à la communauté mouride à la communauté baay Fall nañu ñëw liggéey ensemble en en tout cas le ministère de l' agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage ubbi na seen ubbi na ubbi na ay lo na ay ay buntam pour ñu ñëw liggéey Bougane Gueye Dany di njiital groupe des médias moom tam foofee la daal di jullee moom fekk na nag jamono ji ñàkkub àndam ak gouvernement bu yees gilee ci lépp loo xamante ne rek jamono ji ñenn nag dogal ya nga xam ne jot nañu ko jël ñeel nag wàllug fisc bile moom njiital des médias la mu cay xam ne daal moom mooy euh, ku ci nekk daal yaa ngay def sa liggéey état mu xam nag wàllug médias yi ku ci nekk daal ci loolu la nga sëgg waaye daal jàpp na daal ne jamono ji yenn tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy gàll ci ndodd ko yenn ci ay njiital groupe de presse warul ñu déglu ko. jël ay patron de presse ne ñoom ay sàcc lañu. man dama gérer mille quatre-vingts milliards cinq ans. ñu jox ma absence. de redressement ñoom waa impôt ñoo ma ko jox kon du 2 milliards mooy yàq suma der man Bougane bi man aw ma njariñ ci Abdoulaye Wade aw ma njariñ ci Macky Sall musuma am privilège du ci Abdoulaye Wade du ci Macky Sall kon bu ma kenn di joxoñ wala di ma sorxoñ non déggoo la man samay compte sama alal sama compte sama alal sama bakkan sama compte sama alal sama bakkan ak sama liberté jaayee naa ko njariñu sénégalais yi donc moi je n'ai pas ce problème là mbokki naa la nag la ñuy def euh, wutal si fii ci diwaanu ko Wakaam julli gi tam seetu nañ ne fii amal nañu ko ci teewaayu ko njiital bokk memal ba di Abdoul Aziz Guèye moom jamono ji euh, la muy gën a nag teg loxoom bokk na ci caanam yi nga xam ne la ñu war a rek aare alam gi àdduna ci tamit ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ci waajtaayu ko nawet wala bokk jàpp na rek ne jamono ji euh, ndaw yi ñoom ñoo ñoom ñoo ci war a gën a mën a sóobu bu ko defee rek ku ci nekk daal di cay gis sa bopp ñu déglu ko. tey moom environnement laay wax parce que bu gisee effort yi ñuy def yëpp mais nit ñi il faut que ñu am des comportements euh, des comportements républicains nga xam ne doo ñëw jël benn sa benn salté teg si mbedd mi man loolu lay déplorer actuellement donc il faut que ñu def attention euh, xam ne euh, dëkk bi ñun ñoo ko mën defar ñu ngi waslu ak ñu ngi jeunesse bi effectivement ñoom ñoo ñu ñoo ñu yor ñoo yor dëkk bi jeunesse bi lañu la ñu yaakaar parce que jeunesse bi c'est les bras jeunesse bi lañ yaakaar donc il faut que jeunesse am une bonne formation te euh, ñu ñu ñu muñ aussi parce que euh, nit ñi il faut ñu muñ et puis am persévérance boo yàkkamtee rek doo doo doo doo da ngay am problème donc persévérance boobu laay wax ni ñi ñu ñu gën a ñu gën a bàyyi xel euh, ku commencé benn affaire bul xalaat ne da ngay avancer rek suba mu sotti donc ça veut dire que xaalis boobu barkeelul donc foog xaalis bu barkeel il faut que euh, euh, euh, nit ñi def attention si li ñuy li ñuy gagné mu lew leen. te jeunesse bi occasion la ñu borom bi tabaraka wa taala jox pour ñu mën a adressé ay ay jàngat yoo xamante ne askan wi ñoo koy moom rawatina rawatina jeunesse bi. mbokk yi la ñuy def barastiku ci xibaaru tàggat yaram jàppale nag ne euro 2024 la ñu koy ndar képpee Angleterre bokk ci réew yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, fekki rek équipe yu mag yooyee daal di am ay ndam seen ak jongante bu njëkk ñi ñu duppee rek la formation des Three Lions ñoom daanaka daan nañu réew ko Serbie benn bal ci dara Jude Bellingham moom moo dugal bit ba ca daal di am ci beneen jongante groupe boobe jàppale nag ne ndam demul ndam dikkul diggante Danemark ak Slovénie ku nekk ci ñoom benn bal rek daal di dugal waaye nag laataa jongante yi de réewu ko pays am na ndam ci kanamu ko Pologne bu Robert Lewandowski ñaari bal ci benn altine gi jàppale nag ne jamono ji ñuy àddu ngeen di teelu réew ko Roumanie mu ngay jongante ko Ukraine jamono ji Roumanie moom moo am euh, ñetti bal ci euh, dara jamono ji rek foofe ci Allianz Arena bu euh, ñeenti waxtu ci ngoon jotee nag Belgique dana janno ak Slovaquie bu ñu ca jóge bu juróom-ñaari waxtu ca ngoon jotee réew ko France moom dana rek tàmbali yëf yi moom ci kanamu ko réew ko Autriche euh, lafa fa seeni nekk. mi ngoog mbokk yi kon fii lañuy jaar rek euh, këmmal bi la jotaayu ko xibaar jaajëfal leen rek bu baax a baax ci ànd bi ak kóolute bi te leen ñaanal tamit euh, déwénati bu wér ñu fekkee ko déwén yu bëri mu ci ko sax ci ak wér yàlla tur ko ci askanu Sénégal ca ngeen jëf.